Euh, doyen Abdoulaye Diaw euh, Sénégal contre Eswatini mu jeexee match nul ban jàngat ngay def tey ci match bi nga xam doon na am ci stade Lat Dior bu Thiès. motivation. Mm-hmm. mais mais su ni c'est juste pour àggale pour satisfaire mm-hmm. aux exigences disons du calendrier. Mm-hmm. yow sa bopp tu arrives euh, dans le match la tête ailleurs. L'équipe était déjà qualifiée euh, avant d'aller d'ailleurs à Brazzaville. Nous mhm. mm -hmm. continuions à Kiev. Il, il, il, y avait juste peut-être les à soigner. Mm -hmm. D'abord que l'équipe du Sénégal n'avait plus perdu à Dakar depuis près de 10 ans. Mm -hmm. Statistique, Aliou Sissé était aujourd'hui à son 16e match officiel. Mhm. il se tire d'affaire avec 12 victoires et 4 matchs nuls. Mmh. Marqué, marqué 29 buts, encaissé 4. Mmh. Bon, statistique juste soigné, mais minimum, ils ont échappé à la défaite. L'homme me donne un jeu peut-être. Parce que tu sais, euh, au coup d'envoi, mmh. Bimui d'or avec euh, une équipe du Sénégal désossée, j'appelle une équipe du Sénégal désossée, vidée de son ossature. Hmm. personne n'a dit non. Ouais. Personne n'a dit non. Ils avaient que euh, contre, contre Congo-Brazza, par exemple, Moudor avec huit nouveaux, mu door avec sept nouveaux qui découvrent la compétition africaine. Ce sont les Sénégalais qui découvrent la compétition africaine qui, qui n'y a circonstances à Brazzaville et à Dakar. Alors, xam nga léeg-léeg léeg-léeg euh, ñun bu ñu nekk ci par exemple ci place su Eswatini dañ koy Mm-hmm. xam nga fan la ñu nekkoon ci place su Eswatini tey. Mm-hmm. le Sénégal a fait match nul avec le Brésil 1-1. effectivement. et keroog xaw nañu gagné Brésil avec le poteau de Sadio Mané à la quatre-vingt-dixième. Mm-hmm. alors euh, Sénégal bu dee def noonu ak Brésil ñeneen ñi ci gannaaw Sénégal mën nañ def noonu ak Sénégal parce que échelle la. match bi ki ko gën a bëgg moo ciy gën a def résultat yu baax Sénégal Brésil sénégalais yi ko gënoon bëgg. Mhm. ils ont mené au score le Brésil a égalisé ils ont frôlé la victoire en en tapant sur le poteau euh, presque à la quatre-vingt-dixième bii aussi Eswatini yi ñoo ko gënoon bëgg. Mhm. suite à leur défaite du match aller quatre à un fële chez chez eux. tu sais un match léeg-léeg li lay jëloo dafay am contenu. Mhm. su amulee contenu rek euh, surtout yow nga am déjà un programme euh, fa nga nekk les championnats européens et cetera et cetera. bii mhm. juste da ngay mottali ki la gën bëgg match bi mën na la gagné. Mhm. regarde le gardien de but du Sénégal aujourd'hui il a mhm. il a touché le ballon deux fois. effectivement benn yoon première mi-temps. Seyni Dieng benn yoon en deuxième mi-temps. te bu deuxième mi-temps bi Cheikh Kouyaté bi mooy première participation am ci équipe national euh, mu encaissé euh, but euh, tey bi boobu mu encaissé est-ce que dina am effet ci carrière am ci bon, ça, ça va lui faire mal. Parce qu'il aurait souhaité ne pas prendre du tout de, de but. Mhm. Bien que Bibi Moudjel, gardien de but, Boumine Mnekadjel, un gardien Boumine. Mhm. Un gardien Boumine Mnekadjel parce que la frappe est de toute beauté. Mhm. Seule erreur Boumoudex, il faut avancer. Seule erreur Boumoudex, il faut avancer. Mais pour quelqu'un qui débute, qui cherche ses marques, euh, boo dee wut say ce sont des choses qui peuvent arriver bon finalement euh, comme on dit la catastrophe a été évitée parce que ça aurait été une catastrophe que de perdre te même bu Sénégal perdroon euh, un zéro hmm. daa gis ku bon euh, observateur neutre yi bon on comprend quel genre de match le Sénégal euh, a eu à jouer déjà qualifié et quand on et quand au coup d'envoi l'équipe à laquelle les gens sont habitués était sur le banc bon comme on dit daañu comprendre ce genre de match dans le monde. mais doyen gis nañ euh, coach Aliou Cissé gis nañ. 3 5 2 la démarré gis nañ fi 3 4 3 après 4 4 4 2 tey nekkul di chercher rek benn benn effectif boo xam ne da koy permettre mu ci yeneen rencontre mu teg euh, euh, équipe type bi. non tu sais football c'est ça amul amul amul ci football loo xam ne te gis nga le football aujourd'hui dafay gën a jege sport bu mel na que basket. Mhm. sur le plan de la variété des plans. Mhm. parce que yooyu yëpp ay ay sooy dégg ay trois cinq deux ay mhm. quatre quatre quatre quatre deux ay quatre trois trois yooyu yëpp ay plan la plan de bataille comme on dit. Euh, importance bi mu ngi ci mu ngi ci animation bi. foofu la importance bi nekkee parce que xam nga équipe bi bu ñu bu ñuy joué dépend ci adversaire yi nga am. Mm-hmm. Euh, a na adversaire yi nga xam ne boo leen mënee tu peux te permettre de jouer à trois défenseurs cinq milieux terrain. effectivement. par exemple quand on est allé à Brazzaville l'entraîneur congolais a dit que le Sénégal lui a posé des problèmes à l'entrejeu où le Sénégal avait mis beaucoup de monde. Mm-hmm. c'est-à-dire il vaut mieux défendre sur la ligne médiane plutôt que de devoir défendre devant ton loolu moo indi soo xoolee ñu am possession luy arrivé rarement collectif Sénégal on a eu la possession en première mi-temps déjà à Brazzaville 60 contre 40 mm -hmm. et presque ça s'est terminé de la sorte mm -hmm. parce qu'en deuxième mi-temps bu Sénégal gën na yéeg bu bu Congo gën na yéeg bii moom boo doon def soo doon seet possession bi mhm. war na dem normalement quatre vingt pour cent tey effectivement war na dem kat sa gardien bi ñaari bal la laal benn en première mi benn en deuxième mi-temps bu deuxième mi-temps bi défenseur bi ko ko pass ngay jouer devant une équipe waxuma sax un bloc bas devant une équipe euh, qui est devant sa surface de réparation et tu sais en football là où il y a des équilibres une équipe peut défendre à onze mais une équipe ne peut pas attaquer à onze et là où le jeu se déroule qui défendre moo fay ëpp mmh. parce qu'en football quand tu quand tu fais une croix sur la victoire Mhm. mais wutatuma gagné wutuma gagné. Mhm. mën nga am chance kenn du la gagné. Mhm. soo wutul gagné mun nga am chance kenn du la gagné parce que da ngay da ngay ci fa nga xamee ni yow yaa fay ëpp adversaire bi. et à l' doo jël bi te boo jëlul bi mën nga am chance ñu bañ la gagné. doyen ñu jeexal rek ci entre en jeu bu euh, Sadio Mané ak Diao Baldé Keita ak ni ñu changé xar kanamu match bi. oui man bu doon sama sago. ah équipe Sénégal égalisé avant ñooñu di ñëw. parce que man bëgguma équipe bu nga xam ni dafay dépendre dafay dépendre de de de de noyau. c'est-à-dire li Aliou programmé woon baax na malheureusement euh, amu ci réussite parce que dafa programmé woon def la différence avec une équipe bu nga xam ni euh, ñi ëpp doole ñi ngi ci biti. Mhm. waaw ça aurait été bien que mu réussir loolu mais euh, cela veut dire que. même même même euh, gagné bu ñuy ñëw da da ngay garder yow sa ossature di si dugal par par de mhm. waaw moom la ñuy wax daan rajeunissement massif baaxul. Mhm. da ngay dugal par kenn par deux et cetera parce que soo xoolee ñoom ñu dugg ñëpp baax nañu. Mhm. Euh, ñoom ñu dugg rek Fodé toure baax na ñoom ñëpp baax nañu Abdoulaye Sima baax na Nampalis Mendy euh, il a fait son match ñoom ñëpp ils ont fait leur match. mais bu ñu nekkee ci groupe bu ñuy àndal. ah boole ceeg e ceeg le jeune Sarr ah, qui n'est eh, te bëggoon naa ko ci gis aussi. Mhm. le jeune Sarr qui a joué à Brazzaville qui n'est qui n'a pas joué aujourd'hui mhm. bon c'est bien c'est bien parce que soo xoolee Aliou Cissé avec trente huit joueurs. Mhm. trente huit joueurs euh, euh, euh, dont ci trente yooyu dix sept nouveaux venus dix sept. soo ci boolee ñaari ñaari te presque ñëpp joué nañu. Mhm. Mhm. ñëpp joué nañu entre Brazzaville tey. Mhm. et et et Thiès. Euh, jërëjëf doyen Sénégal 7 mu ngi lay. merci merci ba beneen.